aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala seydina wa mawlaana muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xaddimihi wa salama tasliman ñi ngi tàmbalee suñu kàddu ci sant suñu boroom julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa tey sant xaadimal Moustapha di nuyu bu baax jëriñam ji nga xam ni moo ko fi nekkal di cheikh Mouhamadul Muntaqa al Khalifa hafizahullahu wa raahu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko wéral ko ba naal bi nga xam ni naalal na ko Seyxul Xadim maamam ji loolu lépp mu am ko te mu fekke lépp bi barakati Seexul Xadim ndax Cheikh Mouhamadul Mountakha day moom ku nekk war na koo ñaanal ci taxawaayam ci pas-pasam ci dogoom kon yàlla na ko fi suñu borom gën a yàggal lool te ànd ak wér waaye nag di nuyu mbooleem rakkam yi nga xamante ni bii ànd nañoo moom ci liggéey bi te nekk ci ginnaawam di leen ziare bu baax a baax a baax a baax di nuyu bu baax it jàmbaaram ji nga xam ni mooy borom pàkk bi di ay Cheikh Salih Touré nekk fi nekkal fi Cheikhul Khadim 1980 ba tey jii waaye nag di ci jaar di nuy njabootam gépp di ko jaare ci Serigne Cheikh Ahmad Bamba Touré mi nga xam ni moo di ab taawam suñu borom tey jii dogal mu xëyoon dem Mbuur ci ay yitte yoo xamante ni bii Serigne bi ko faa yebal mu nekkoon ca waaye di leen nuyu yéen waa Leral TV dañu wax ni bi ngeen ñëweet fekk ngeen fi rakkam Serigne Ahmadou Dame Touré mi nekk ci kër gi nekk ci daara ji yore daara ji ànd koog mbokki jàngalekat yi mu ko nekkal yëpp. di am mbégte lool nag ci seen teewaay ci barab bii nga xamante ni bii tey ñuy waajal màggal gi di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bu màgg di bis bu tedd di bis boo xamante ni bii Serigne Saliou ture am na yitte jum ko joxoon am na fu mu ko teg ndax màggal gi fu ko mus a fekk ba tey jii saa su màggal gi teroo da ngay gis sëriñ bi mbégte mi ci la dëkk waaye day yokk xéewal day yokk mu yoron ci pàcc yu rëy rëy rëy yoo xamante ne bii jamono Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ba ci sëriñ Saalihu Mbacké nga xam ne gan yi nga xam ne ñooy gani sëriñ Touba yi ganuk sëriñ Touba nag buñ ko waxee mooy ñi nga xam ne dañuy jóge ci turuqu suufee yi ak surafaaw yi ak fépp foo xamante ne bii nitu diine mi ngi fay jóge bu ñu musaana ñëw ci loxoom lañuy nekk moom mu dalal leen ba ñetti fanu màggal gi mat mu àndaat ak ñoom ci sëriñ bi mu soog leen a yeewu tey jii nag ngeen ñëw di ñu laaj ci diggante sëriñ Touba ak Thiès diggante sëriñ Touba ak Thiès moom mun naa ne lu gàtt la waaye lu rëy rëy la ndax gàtt gi mooy ñun ñëpp jàng nañ ci histoire ni décret bi nga xamante ni bii tubaab bi ci la may sëriñ bi jàmm zahiran cees gi lañ ko signé ba ca tegee tamit. li ñu xam ci dëkkuk sëriñ bi fii ci cees amaana jaar na fi ay yoon yu bëree bëree bëri bëri bëri waaye am na ci yoon woo xam ni keroog bi mu ñëwee fii cees ci gouvernance cees bi bureau bi ñuy wax finance nekkoon na fa ay jamono bureau boobu wax nañ ni keroog ba ñëwee fa lañ ko dalal waaye bureau ba dañ ko bale ba mu set wut suufu beeñ def ko fa nga xam ni valeur cees Thiès suufu beeñ soosu bañ ko fa defee ci la sëriñ bi nekk ki ñuy wax El Hadj Ahmad Baro Njëgën keroog sëñ bi woolu na ko mu fekk ko fa ànd ak koo xam ni sëñ bi la ko tuddee sëriñ bi it sëñ Saliou wax nañu ni keroog it li mu fi jëfandikoo bisaab la ak sëpp ña ngi ko wute ji ba aneen ñu def ko lu mel ni bulaax sëñ bi ci la laal daal di bàyyi kon loolu taw feexu Cees la ci diggante sëriñ bi ak Cees waaye nag jàmbaaram ji nga xam ni 1980 la ñëw fii ci dëkk bi bi muy ñëw ci dëkk bit boobu mboolem kër sëriñ Saliou Mbacké fu Serigne Saliou Mbacke am kër ci kaw suuf ak i daaraam moom moo ko yore teeku Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi fi nekk ci jamono jooju bi mu demee ba soxla koo xamante ni bi daa war a ñëw cees gi nekkal fi Serigne Touba cees doon dëkk boo xam ni li fi daje dafa bari lool ndax këri diine yëpp dañoo daje fi cees ak diine joo mën a dugg nag daje nañ fi cees bu dee ci diine l'islam mboolem turux yi ndax boo génnee nii yaa ngi jar Tiwaawan génn jaar Njaasaan boo ñëwee kër maam Alaaji Amat Baro Njigéen génn ñëw Cenaba ba keroog ngay wuti Ndakaaru ba yegg Laayeen sëñ Abdou Lahad kon cees faaw am ku fi nekk koo xam ni mooy fara nekkal Serigne Touba sëñ Abdou Lahad bi mu koy seet nag waxtaan ci ñeeg ak ñim ci war a waxtaanal di rakkam yi mu nekkal jamono xamal leen ni kat Thiès kenn ni ci ñun moo fa waroon nekk te ñu néew lool kon faw ñu am kuñ fa yóbbu te kookit day doon koo xamante ni bii borom xam-xam lay doon buy jëfe xam it waaye biir kër sëñ Saliou nag laa ko yaakaar ci la wooyee sëriñ Saliou Mbacke waxtaan ceeg moom ni ko sëñ Saliou ture mii laa soxla ñu yebal ko cees bi mu ci waxtaanee ak moom sëñ Saliou nangul ko ko sëñ Saliou ture ñëw wuy si ko mu ni ko demal ci sëñ Abdou ba mu demee sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou daan daal ni ko daal koy wax la nga xam ne moom la ko sëñ Abdou Lahad wax lenn li wax ko ci ni ko kon nag boo demee dëkk baa waaye yaa fa nekkal Serigne Touba imaama ga tamit yaa ko yore muy barab bii ñu nekk bi muy ñëwit Serigne bi wax nañu ne ñaar ne wax na ko ni boo demee tamit na nga ko yaa ngi woon waaye na nga ko wéyle muy fulkul masoon ak laylatul mawlidi nabi muy gàmm gi ñuy def fii at mu jot sëriñ bi ñëw fi 1980 bi mu ñëwee 1980 fekk dëkk bi nuru woon lu lëndam lool ndax boobit jamono jooju ak taalibi tumuranke na sëriñ bi ñëw samp daara ji bi mu sampee daara ji boobu tey jii boole jàng ak jàngale maanaam ñi nga xam dañoo toll ci jàng te la ñuy jàng ñu mun koo jàngal keneen ñooñu dañuy jàng di jàngale ñi nga xamante ne dañuy jàngale ñiy jàngale alxuraan di jàngale xam-xam daara ji tey jii li fi génn ci boroomi xam-xam kenn xamul nu mu toll ñii wattoo fi alxuraan ñii wattu ko boole mokkal ak bind am ci liggéeyub Serigne Saliou Touré fii ci dëkk bi loolu la daara ji baaxoo ba tey jii tamit ci loolu la nekk sëñ daam mii ñu doon wax léegi mi ngi ci loolu yore ndongo yoo xamante ne bii ñii jàng nañu alxuraan ba mokkal ñii ñi ngi beqi ñii ñi ngi toll ci bind sëriñ bi nekk ci boole kook dëkk bi ñi nga xam ne fekk na leen fi muy ay mag yoo xamante ni bii dañoo nekkoon ci yoon wi lu jiitu ànd mu ànd ak ñoom ci liggéey bi ñu nekkal fi ay kër moo xam waa kër maam Cerno Birahim la moo xam waa kër sëñ Mandumbe la moo ko xam waa kër sëñ Isaa Jenn waa fu mu ci mën a doon rek ci yoon wi ñi fi fekkoon ñëpp mu ànd ak ñoom ci liggéey boobu yor fi baatu xaadimul Moustapha bi boole tamit kër yi diine yëpp ndax ko am jaxasoo la ak waa Tiwaawan rawatina Alaaji Abdu mi nga xamante ni bii tey dëkk bi yëpp fu ñu ko tuddee ñu ne akasa ndax ku ne min na maam Abdou Aziz Dabaax ci ay kàddoom bu réew mi musaana yëngu ku ne min na ko tamit ci bu àdduna musaana jaxasoo sëñ bi am moom relation yu kawe kawe kawe kawe kawe am na ci mun nañ cee nettali ñaar rek yoo xam ne benn bi fii la woon ci barab bi keroog mu ñëw di ko ganesi waaye fi mu tolloon ñoom ñaar mu xamal ko ni ko fa lay jullee si tàkku saan ba ñu demee ba waxtu yu jot keroog alaaj Abdou li muy xaw a naaje naaje naaje naaje naaje sëñ bi daf ni nañ ko xaar ba mu ñëw ba mu ñëwee ci biir moxtaar mi ñu daal di julli tàkkusaan baneen bit ñëw na ba fii ci kër gi te booy fekk na mu toll ci benn mag bi di nitu yàlla ko mag waaye bi mu ñëwee li mu wax sëriñ bi dane ko mankat dama ñëw ngir barkeelu si suufu kër gii rek sama tànk bi na dox ci sa biir kër gi ma barkeelu ca delluwaat loolu moo doon yitte ñu am relation bu rey nag lu bëree bëree bëree bëri bëri bëri am na bis boo xamante ne bii da koo woolu téléphone ni ñu jox ko sëriñ bi mu ni ko damaa bëgg nga waxal ma sëñ Saliou Mbacke ni ko damaa dama koo namm su ma ko jot gi mayoon day wala mu jox ma ci ndigal dinaa ko ziar si sëñ bi dem Touba wax ko sëñ Saliou Mbacke sëñ Saliou Mbacke ni ko bismillah wax nañ ne keroog bi Alaaji Abdou demee gane ji sëñ Saliou Mbacke ci ngan googu. keroog dafa fekk sëñ bi mel ni yaram wi xaw a sutante wàllu sedd boobu koy dal mu ni sëñ Saliou Touré yaa koy attaayaal waaye bu du woon ak fii yaram wi toll man may toog attaaya daan ni ko waaye damaa bëgg kaas boo xelli bu nekk teg ko sama loxo ma teg ci ma ma ma jox ko ko kon relation bi yaatu woon na lool ba keroog bi nga xamante ni bii jóge na fi suñu borom dogal mu làqu sëriñ bi dem ca eh, denc ba waaye ya nga xam ni moom la Serigne Saliou ture def ci maam El Hadj Abdou sëñ Mansour si borom daara ji keroog bi mu gisee woy yi ab jël la ko booleel daan ni ko woy yi fi ñëw marché yi fi ñëw yëpp bii moo ci dàq nga xam ne keroog xeetu teraanga bu ne yëkkati na ko jox ko sëñ Saliou ndax sëñ Saliou Touré ci la ko waxoon ci la ko waxoon tabaxtarta ila maswaaka fil jannatil xuldi ma al xuuri wal wildaani yaa saabi rusdi yow El abdu daagul ci biir àjjana nu la neexee booy daagu kat jigéen ñi nga xam ne ñooy xóoraxin yi nga xam ne suñu borom bind na ko ngir jaamam ñu sell yi ñoo lay dar ak gone yi nga xamante ni bii ñoom la suñu borom teg fi ñu ànd ak yow nga daagu mel day mel ni tey bu doon manifestation daf ne ko kon daagul nga manifesté wu nu la neex doxe ndax ab julit araam na ci moom ci kaw suuf muy dox di yëkkati ay mbaggam waaye nag biir àjjana nag moom booy dox nag moom loolu ñu naan nganda ngandal bu la neex nga def mun ko nag daagul dox nu la neex ndax yow kat yaay borom njub mi te liggéeyal nga suñu borom lu ko jar waaye diggam ak sëñ man Mansour si ak njaboot gi ñoom ñëpp ba tey noonu la ndax ba mu fa jógee sëñ Mansour bi nga xam ni moo ko wuutu bi sëñ bi jàkkaaroog moom bayit bi mu ko njëkk a jox daf ne kon nasarakat na siiru yaa Mansuuru bi jeex jaahi man sumaatuhu Mansuuru sëñ Mansour man kat li ma lay jaale ndokkel lay doon ndax kii du ku ñuy jooy waaye nag maa ngi lay ñaanal suñu borom jàppale la ci yéen bii nga xam ne yéen ne la ko ci barkeb ka nga xamante ni bii mooy sa turandoo di Mansour am Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam am na turu soor suñu borom am na man soor te Mansour mooy aji dimbale kon nga gis sëñ Saliou Touré noonu la dunde ak ñoom waaye boo génnee Tiwaawan ñëwaat ba fii ci alaaj aman njigéen mi ñu doon wax léegi moom da doon wax ni moom sëñ Saliou Touré fi mu ko tegoon yéeme na moom day wax ni Touba dëgg la bokkoon nañu démb waaye buñ dee ba am fa kër am fa benn manzila boo xam ne kawe na doxub Serigne Saliou Touré la nga xam ne Alaaji Amadou Ndiéguène moomu tolloon na foo xam ni bu ñu musaan di wax dara lu mel ni weeru feeñ wala ay wax ju xew danaan Serigne Saliou Touré lu ci wax moom loolu rek lay laaj lu ci Serigne wax cene ba tamit noonu la meloon ak ñoom buñ ko toppee mën nañ fee fanaan waaye kër maam euh, Alassane Thiaw laay nga xam ne xalifa bi maam Alsaan euh, wala maam kii Cheikh Cheikh Abdoulaye Thiaw Laay moom it noonu la amoon ak sëriñ bi relation sëriñ bi wax nañ ni 1954 bi muy nekk fii ci got am na njabootam gu fa nekkoon goo xam ne ci moom lañ daan ñëw di indi téereb maam limaamu moom mu leen koy jàngal moom Sëriñ Saliou Touré ci la waxe woon tamit jëmee ci ni amin mubliqin anni salaaman mubashira ila cheikh abdillahi ahni muzaffira kan moo may jottali sama nuyoo ci jëme ko ci Cheikh Abdoulaye mii nga xamante ni bii kat yàgg yàgg yàgg dina doon xalifa maamam di ko ndokkel ci xilaafa gi nga xamante ni bii suñu borom jox na ko kon sëriñ bi ci wet googu day loo xamante ni bii lépp rek ci liggéeyu sëriñ Tuubaa ak li ko sëriñ bi indee woon fii ci dëkk bi ngir mu nekk fi nekkal fi sëriñ Tuubaa ni ma ko waxee loolu bi mu ñëwee mboolem li tàmbale sëñ Mourou Moustapha ba Cheikh Mourtada ku sa njaboot nekk fii rek sëñ bi téena la mboolem seex boo xam ne cheikhum sëriñ Tuubaa nga maanaam kon mboolem képp ku ne ana muridullaahi rek yaa ngi ci ginnaaw seriñ bi waaye nag mu téye ñëpp jàpp ñëpp liggéeyal sëriñ Tuubaa tamit liggéey bu wér a wér a wér ci dëkk bi ndax ku ni taalibe ni sëriñam waaye ku ni taalibe jàpp ni taalibe du soxlaal sëriñam ah kay ndax taalibe ñaar. da koy séentu ci sëriñam saa su ne benn bi mooy ruwam fu mu toll day day soxla sëriñ bi sëriñ bi nag da cee nampatal ñëpp waaye ba nga xamante ni bi nag moo ci eh, kii muy faaw taalibe bi fu mu gessoo fu nekk bëgg naa gis sëriñam am fu ñu gessoo rek gis nañ sëriñ Saliou rek ci taxawaay yëpp moo xam ku fi bàyyi la moo xam ku amu bis la ak bis bu bis mun a doon rawatina nag jaami yàlla yi nga xam ndax dañuy wax man damay faral di wax ni bu dee social Serigne Saliou li muy jëf ci social man bi ma xamee ba tey xamaguma ci àdduna kuy def loolu social ndax koo xamante ni bii suba goo xëyee ndax danaa wax naan li ma yore kat ñaar ñoo fiy daje ku may jox ak ki may laaj ki may jox suñu borom ma tax mu may jox ki may laaj suñu borom moo tax mu may laaj kon lu fi ñëw lu nekk rek bu mu fi toog ci moom nay gisee koo xam ni bu ñu ñëwee kër gi ñu xëy mu génne dépense joxe ko nit ñëw mu yónnee ni nañu jëli dépense bi dépense boobu ñu jëli ko indi mu jox ko kooku kër gi xaar maanaam tey ñun ñi nga xam ni dañoo nekk ci kër gi mel ni dañuy tudd di tudd njaboot bu fi lenn rek rek rek nekkee yow mi taalibe nga ñëw taxaw njaboot taxaw njaboot ko mooy xaar ba ëllëg ak lu mu mën a doon nag ak lu mu mën a doon maa ngi fàttaliku ci jamono yoo xamante ni bii mel ni liggéey benn entreprise bu doon jël ay liggéeykat am yum ko ci jagleeloon ñoo xam ne daf leen ko war a jox keroog ñooñu biñ ñëwee am na kilifa goo xam ni ñëw na mel ni lañ ko jox moom euh, dayu ko. waaye kilifa googu bo lool lim koy ñàkk bi mu ñëwee di ko wax moom sëñ bi lañ ko joxoon da koo jël dolli ko dolli ko kooka ca la mu amoon daan njaboot gi yéen na ngeen xaar ndax man kat képp koo xam ni da war a am man maa la war a jox ku ñàkkit maa la war a jox kon ci gàttal daal ñu dellu siwaat rek wax ni sëriñ bi daaraam ji bokk na ci daara yi nga xamante ni bii ca daari Serigne Touba yi la ndax jàng alxuraan mokkal ko bind ko tari ko mokkal tari bind ba fi ñëwee ba tey ci loolu na mboolem xeetu xam-xam it ngi koy jàng fii ci daara ji mboolem xeetu xam-xam rek bu ñuy jàng ci jamono yi at yi weesu rek bari na fi xale yoo xamante ni bii fii lañ jànge ba mokkal waaye enseignement araab bii nga xamante ni bii dem nañu ba baccalauréat bi léegi bag état am na fii tamit ci ëtt bii lañ leen jàngale programme bi jàngal leen ko ba ñoom bi ñu demee defi baccalauréat ñoom ñëpp ku ci nekk dañoo génn mention kon daara la université la waaye daal ngeen xam ni sëriñ bi mi ngi noonu digganteem ak màggal gi niñ ko waxee woon bu ngeen xoolee fii léegi di ngeen gis ni ay gàtt la yii yëpp dañ koy waajal mu jëm ci màggal gi kem ni ko sëriñ bi santaane. ndax dafa wax ni màggal moom jàng arxuraan jàng xasida bernde Serigne Saliou Touré noonu la koy defee saa su ne ñetti fanu màggal yi muy fukki fan ak juróom-ñett fukki fan ak juróom ñaar fukki fan yi fukki fan ak ñaar fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom-ñeent bis bu ci nekk jàng arxuraan bernde fii ci kanam tuuti bu leen fi tàkkusaan fekkee léegi xam naa jataay bi sax moo tax waaye ñi war a bale léegi ñu ñëw bale fu ñu sëlmale ñu ñëw toog jàng arxuraan ji ni ko sëriñ bi santaane ndax bi mu fi ñëwee quatre-vingt ak tey jii suba gu ñu xëyee jàng nañu kaamil arxuraan bi soog a ndékki màggal fu weer wi takku saan gu jot ñu jàng kaamil bi kon nag loolu daal lañ koy waajale di sant bu baax a baax di leen ñaanal yéen suñu borom yokk leen wéral leen ndax yitte ji nga xam ni tey jug ngeen ko romb barab yëpp ñëw ba ci barabu Serigne Touba bi xam ne fii barabu Serigne Touba la ngeen ñëw fi def fi reportage boobu loolu du ndaw kon na yàlla na suñu borom may leen fex dëgëral leen ba li ngeen di sàkku ci télé bi suñu borom defal leen ko ba mu jàll international ak fépp wa axiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin